asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi tey nag ñu ñëwoon fii ci kër mu Muntaxa fii ci Daaru Minaan war amal benn ziar boo xam ne waa daaira Argentine fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem daaira yi àndoon ñëw ngir amal ziar bi nga xam ne dañ koy baaxoo di def at mu jot tey nag ñu fekkoon sëriñ bi fii ci Daaru Minaan mu dëppoo ak waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos war a ziar sëriñ bi kon nag euh, ñii ñu nekk suñu ginnaaw ñoo jëru ñi nga xam ne nii ñoo yor addee ji war koo jébbal sëriñ bi kon xam naa dañuy ubbi rek jox ñenn jëwriñ ci ñoom ñu daal di nuyoo daal di ziyaare daal di wax lan moo waral sunu teewaay fii tey ci dëkk bu teel bi di Touba. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Ibrahima Touba jërë ngeen jëf noonu nga ko waxee sëñ Mour noon rek la muy fédération na Nasri Touba Argentine te ñëw fii di dimanche le 4 juillet 2021. ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaan suñu borom yàgg fi loolu te ànd ak waaye ziar bi ñu am ci tawfeex ju rëy rëy fas ko bokk ak Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddus bokk ñoom ziar bi muy ziar spécial ñu ànd ak jëwriñu fédération bi yëpp nag sëñ Dame Cissé fi ak Baye Gaye sëñ Mame Thierno Amar ñu fas yéene ñëw jébbale addiya ji yàlla dogal na tey ji mbokk yi jóge nañ fi ay barab yu takkoon yu fasandikoo ñëw daje si kër sëñ ñu indi ko fas yéene koo jébbal maanaam xalifa euh, Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom mu dimbali ñu taw feexal ñu bañ mën a yëkkat aade jox ko sëñ bi fasal ñu ñaanal mu mel ne li ci am solo rek mooy addiyal Seexul Xadim ndax sëñ Tuubaa dane képp ko xam ne jox nga ko addiyee wala nga siyaare ko yàlla suñu borom na nga ko musal te jéggal ko te yërëm ko kon loolu dafa doy sëkk sëkk sëkk ci fépp foo xam ne ab taalibe nekk na fa ci ci àdduna bi di fa liggéeyal sëñ di joxe sa addiyee ndax addiyee dafa am solo lool addiyee moom dafa barkeel lool kon ñu ngi ciy soñ suñu bopp di soñ képp kuy dégg suñu kàddu te nekk ci daayira Serigne Touba bi mooy lii nga xam ne moom la ñuy dajale Cheikhul Khadim muy addiya ñu gën cee pasteefu képp fépp foofu daayira nekk ñu ciy soññee ci àllarbay Serigne Touba di ko dajale. ñu ngi ciy profité di soññee rek bépp mbokku taalibe xam ne lii ñu fi andi tey mooy daayira yi nga xam ne 42 daayira yi nga xam ne mooy dajale addiya ci àllarba ñett ñi soññi mbokk taalibe yi rek fépp fu waay nekk ci Argentine daayira boo gën a jege nga fay dem di fa jox sa addiya ndax xam ne at bu jot dañ ko andi sëñ Muntaxa di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yéen ñi bokk ci mbooloo ma te egsi wu leen itam mel na ne si ngeen seen jëwriñ ñi si nañ jébbal nañ liggéey bi suñ maa ngi leen sant leen gërëm leen yóbbante am nuyoo ci bokki taalibe yi ngeen fi bàyyi leen ñaanal rek ñu gën fi daje tawfeexi sëriñ Tuuba wax ngeen léegi day baat yu am solo ngeen wax ne réew ma xaw naa xat xaw naa am ay jafe-jafe waaye ngeen wax gëm ne sëñ bi yëg na loolu laataa ngeen koy wax ndax ngeen wax ne sëriñ Saaliw moo leen mas a wax inshallah du nekk ba ngeen di wax nuy door a xam kon ngeen gëm ne sëñ bi xam ne la fa nekk ngeen xam ne sëñ bi xam na ne moom ngeen fa nekk kon la ca war ñaan ay yéene ju rafet ak taxawaay bu mat dana ko def sëkk ba mat kon na xel yi dal bu baax te ñu gën a rafet njort jërë ngeen jëf la a billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di waxaat alhamdulilahi rabbil alamin su ngeen gisee jotaay bi nag mooy ziar bi nga xam ne nii moo nu taxoon a jóg jëm ci ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha te waa fédération Argentine doon ko jébbal sëriñ bi àndoon ko Hizbut Tarqiyyah jébbal nañu addi ji ba noppi kon xanaa rek dañuy daal di ñaanaat bu baax a baax di ñaanalaat mu Mountakha mu yàgg fi lool te wér yàgg koo fekk yàgg koo jox hadiya mu yàgg nu koo nangul ci barke Borom Touba mu mel ni rek euh, ñu nekk ak suñuy jëwriñ yi nga xam ne nii ñoo jiite liggéey bi ci ndigalu Serigne Mortala Sall.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 bañ a yeggee it ziare ba moxtaare na lool ñu sant Serigne Touba Xadimal Moustapha te it amoon yéenee nag ni ko daan ziare nga xam ne dañuy dañuy jàkkaarloog moom ñëpp mbooloo mi ñëwoon ñëpp ndax mbooloom Argentine ñu bari ñëw nañ ci benc bi bisub tey depuis 9h 10h ci suba ba léegi ñëpp ñëw nañu ànd ak ñun ci liggéey bi. amoon yéenee nag ziar bi oyof neex lool yomb waaye nag comme mbirum mbooloo la te mu nekkoon ziar spécial xëy na ak ni mu demoon ak situation bi moom moo waral. ñu tànnoon ñett ba ñeent ba juróomi kilifa ba buróo juróomi jëwriñ pour ñu teewal mbooloo mépp bu ko defee mbooloo mi xamee euh, ziar bi noonu la demee yéene woon nañ kenn ku ci ne nag ñëw jege jàkkaroog Serigne Mountakha Bassirou donte jàkkaroo bi am na sax amaana waaye jege gi nga xamante ni kenn ku ci ne taalibe ju ne amoon nga yéene def ko yéene woon nañu taalibe bu ne def ko ndax tey addiye ji nga xam ne ñu ngi ko doon jébale tey mu toll ci limu 3 millions cinquante mille francs CFA mu nekk loo xam ni lu lu lu lu lu lu taw féexe la ndax li tax mu doon taw féexe mooy addiya joo xam ne bu koy dugal Sénégal ak tey mat na 6 mois wala 7 mois ci biir Covid nga xam ne jamono boobu dara doxatul euh, jamono boobu lépp dañuy tekk jamono boobu lépp dafa metti waaye Argentine fas seen jom góorgóorlu rey seen bopp ni dañuy joxe addiya Sëñ waaye danañ ziyaare addiya Sëñ waaye rus nañu at ma romb te duñ yóbbu addiya Sëñ waaw kon ñu gën a góor góorgóorluwaat rek rey suñu bopp te xam ni addiya ji joxe nañ ko tey. nañ jàpp ni addiya ji jëm déwén waroon naa tàmbali bu yàgg te bu déwénee maanaam nañu fas yéene lañu defoon ñu triplé ko. jërëjëf noonu rek la. Uh-huh. Uh, sëñ Moustapha sant nañ bu baax a baax. mel ni am nañu tawféex bu baax a baax ci ziar bi. ndax nii rek lañ si bëggoon muy dajale addi yi nga xamante ni moo jógee bàyyi ko ci fédération bi ñëw fii ci Touba. ñu yëkkati ko jébbal ko ku tedd ki di sëriñ taxa uh, ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér te yàgg maanaam dajale addi yi di ko indi. di santaar bu baax a baax na ci tawféex gi ndax wax dëgg yàlla ziar bi eh, tawféex na lool ndax eh, lu mel ni yaakaar naa mi ngi fi doog a am ñëw. Eh, ñu boo ko def la première liste bi nga ñëw joxoo sa ziar sëñ bi ñaanal la doog a recevoir maanaam isbitar xedaar xudoos ak maanaam niñ jàkkaarloo ak discours bi fi sëñ bi def lii taw fexe na di ñaanal nag mbooloo mi yëpp yëpp yëpp rek suñ borom dafa leen taw fexe di santaan na bu baax a baax jëwriñ yi nga xam ne ñoom ci liggéey bi ku ci mel ni sëñ Dame Cissé nga xam ni maanaam coordonné maanaam liggéey bi sonn sonn si lool lool lool lool sëñ Bamba nag moom itam mention spéciale ndax taxaw na liggéey ba lépp taw feexe lépp murite di sant nag bu baax a baax soxna yi nga xam yi ñoom lañu àndaloon te bàyyi ko ci gox yi fenn fu ne di jóge fa ñu ànd soxna yëpp ñëw itam ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant mbooloom yëpp li nga xam daal liñ si bëggoon suñu ma defal nañ ci kaw suñu jot xanaa ni nga ko waxee rek takkaat laxasaay ndax murit moom mbaa moom lawbe rek jamar du ko tey saf fas yéene maanaam sumb bi nekk suñu kanam fas yéene ko àggal xam ne maanaam suñ bi lépp mën na tey ñaan gi jàpp na ni nangu na bu baax a baax. waaw di rafetlu siyaar bi rek comme ni mu jàllee man nag fi may ñëwee mooy di gën a soññ mbokk taalibe yi rek te xam ne eh, addee ji ñu joxe tey mooy. daayira yi nga xam ne mooy 42 daayira yi nga xam ne moo nekk ci fédération Miftahou Nasri muy daayira yi nekk Argentine yëpp aju ci moo xam ci province yi La Plata ak fu nekk ñu bokk ci fédération bi seen addiya lañ dajale indi ko tey ñuy soññi bokk taalibe yi nekk Argentine yëpp fu ci waaye nekk te jege daayira nga fay dem di joxe si addiya mooy te jour ba ñuy def daayira boo mënul dem nga yóbbante ko ndax mooy tax addiya ji ñu ci bëgg ñu mën ko am kon nag ñu ngi soññ ñëpp li ci ëpp solo nag ci siyaar bi mooy nga toog xam ne sa addiya dem na ci siyaar bi mu leer na sëñ Muntaxa doon na ci loolu rek mooy pas-pas bi leneen li ci solo jege sëriñ beeg sori kooku yëpp yi ci amul solo li am solo daal mooy sëriñ Tuubaa moom du nax kenn te kenn mënu koo nax te lu waaye def gis na ko kon ñi ngi soññiwaan mbokk taal bi yëpp ñi nekk Argentine ñëwuñu ak ñi demoon ba jege sëñ bi ñoo ci yem li ci am solo rek mooy yàlla nu yàlla sëriñ bi nangoo sunub liggéey te defal nu kàttan liggéey loonu ci barkeb xasida yi gën a góorgóorlu ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ndax amuñu ku dul sëriñ Tuubaa ca lii lu dal la lu sedd xol la doon joxe sa ñaq ba tey mu xëy agsi ci Serigne sëñ Serigne taxaa mu nungul ko boppam teg ci kàddu yu am solo yi war naa tax ñu gën a jaajuwaat gën a takkuwaat fu waaye mën a nekk rek xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo am solo di ci yi ñëpp te xam ne lii tamit lu am solo la ndaxte lii mooy li ñu sëñ bi digal mooy booloo nekk benn fu ñu mën a nekk kon nañ gën a góorgóorlu ci fédération bi gën a góorgóorlu ci li koy doxal gën a góorgóorlu ci li koy dëgëral ca fu mën a nekk rek maanaam nga góorgóorlu ca daayira Sëriñ Tuubaa jokk fa sa bopp bu baax di joxe sa addiya ndax tey kat addiya ji fi ne nu mu mën a mel ak lu ziar bi mën a neex neex neex ku ci joxut sa dërëm soo ko waxee soo ko waxut xam nga ni sa xel dalu ca loolee ca ab taalibe fu mu nekk la mbokk la moromi taalibe may def da caa war a góorgóorlu ba nga xam ne si ne maanaam bu liggéey bi sutee lu mel ni sa xol sa xel sa xel dal ca sa xol sedd ca ndax am na solo trop kon nañu gën a góorgóorlu di profité rek di ziar bu baax sëñ Pape Soda di soññee ci Touba ci kanam ji ndaxte ku ñëw ba ci dëkk bi xool li fi Touba ci kanam réalisé li nga ci doon joxe di nga ci gën a di li nga ci joxe di nga ci a góorgóorlu loolu nag ñoo ci potoxlu rek kon kenn ku nekk na nga bàyyi xel loolu ndax lépp liggéey sëriñ Touba la waaye li ci ëpp solo mooy booloo gi ak bennoo gi ak maanaam ànd gi doon benn kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax. kon mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ko déggandoo muy ziar bi nga xam ne moom la doon amal annuel ci kanam sëñ Touba sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan yàlla suñu borom mu yàgg fi loolu te wér ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci turu Serigne Mokhtar Sall jëwriñ ak Serigne Bamba Niang mi nga xam ne moom lañ toftal ci moom ci taxawaay bu mat bu am solo bi ndax wax dëgg yàlla lii tawfeex la ndax euh, Hizbut Tarqiyyah seen liggéey dafa matale te mat kon képp koo xam ne yàlla def na sab siyaar ñu boole la ak mu ñoom sant yàlla rek nga war a def ndax liggéey bu yàgg la liggéey bu mat la ndax li ubbee rek nga xam ne mooy alquraanu karim di ndamul Serigne Touba di cërub Serigne Touba ñu bindal Serigne Touba ñoom ci seen bopp ab kaamil boo xam ne ñoo ko bind seen loxo bopp bindal ko nga xam ne kenn photocopié ko kenn imprimé ko ñoo ko bindal seen bopp àndaale ko joxe ko addiyee loolu dafa doy sëkk kon loolu képp koo xam ne sab liggéey dugg na ci biir war ngaa sant yàlla kon loolu ndam la loo xam ne Argentine am na ko ren muy ànd ak waa Hizbu Tarqiya jébbali seen addee ci kanam sëñ Tuubaa sëñ a Basiiru lool addee ju mat la ju ju yàlla nangu la ju sëñ Tuubaa la kon alhamdulilah rabbil alamin